voilà Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui fallait ca ICAT ngir ñu def conférence euh, boo xamante ne dañ koy def wax ka ci entre relation Afrique ak Europe voici le président Ousmane Sonko le premier ministre en tant que président Pastef le fa ñëwee gis ngeen ni solo sol gi rek moom moo gën a extraordinaire te sol bu somb symbolique la parce que day wane tradition ak culture bu Sénégal mais surtout ak Afrique donc li mu solo ni booy xool euh, solo nigérien nigérien la wala euh, ci ñooñu lañ ko gën a xamee quoi donc waa Nigéria ñooy gën a solo ni ñu dem ci page publicitaire bi da nga am jafe-jafe sa wàllu àdduna cat daf laa sonal wala làmmiñ dawal seeti sëriñ Saalihu Mbàkke di sët si sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke seet gu leer nañ li si xaar wax la sa ëllëg ba nga xam ne gis na la dawal seeti sëriñ Saalihu Mbàkke fasu mbig yi boo xamante ne koo xamante ne saa war a dafa nooy nga gaaw a daanu booy say jigéen di gaaw a àgg dawal seeti ko ndaxte fas koogu noonu maamam ju baax gi di sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke moom moo ko joxoon mook ko baaxe woon jigéen boo xamante ne danga taw am doom dawal seeti ki nga xamante ne mooy eh, Serigne Saliou Mbacké koo xamante ne da ngay lijjanti ay kayit mu jafe muy visa nga bëgg a dem bitim réew wala nga nekk bitim réew taw ñibbisi demal seeti Serigne Saliou Mbacké ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro bi 77 385 92 00 wala 78 124 20 45 ak Serigne Saliou Mbacké aju yëpp ay faju